وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا

na teroti gi ñëw xolu murid yi sedd na boole Bakar. Bamba ko waral. moom la waxoon ke weer wa mooy weeru safar la. Amadou xaratu yow ma sabbi Samin Azar. Samin Azar. moom la waxoon ke weer wa mooy weeru safar. Amadou xaratu yow ma sabbi Samin Azar. Bamba ko waral. sëriñ bi daf nañu sant la yàlla li dalee ginaar ba gileem la wax képp koo xam ne bis bi mën nga ko ci màggal nga def ko ndax kat weeru màggal gii ci waay def ci kàttanu sëñ Tuubaa moom xaaratul sax sëñ Tuubaa xaaratul ay une semaine da ngay gi moo doon noonu moo taxit yàlla bi mu ko jàppee léegi di ko woote moo dem foo xam ne bis ni nekk dafa wala junne wala ngay maye ko 18 safar da nga wàcce Touba ngir ñëw sant la ko yàlla ndax nee na bis bu lu mën a am ci àdduna rek ci bis boobu la bànnee kon ñun suñ ñun murid yi loolu suñu fierté la keneen ku dul murid te xam turu sëñ Touba wala nga dégg Touba wala nga dégg màggal bi loolu sa fierté la ah. loolu ñu mën a wax tuuti ci yoonu géej gi ndax dem ci ñibbis bi bi la bi ci dem bi la wala ci ñibbis bi waa xam nga man sama wàllu bopp Euh, yooyu dama tudd ma ne di di di faral di gis dama ne rek laa mën a jàng te yàlla dogal nag bu ma dugg ci thème danaa ci xuuse te am mën naa am la nga ñamal ñu tudd ci yoonu géej waaw xam nga yoonu géej gi lu nga sëñ Mamadou Mbaye moo moo xam saara bi ah, waaw damay damay damay damay bañ a jëkki ah waaw donc dara waaw Abdoulaye Diop Bichri bu ñëw dara ko yaatal man xasida rek laa mën a kon lay lancé xasida rek laa mën a kon ñu xaar Abdoulaye Diop Bichri bu ñëwee danaa leen jàngal xasida ba mu neex moom day leen waxtaanal seen tubaab ba mu neex incha allah waaw alhamdulillah sawar terootina terootina màggat gi ñëw waa du ñëw war a dalal seen cheikh ah. nga xam ne si mooy borom complexe waxtaan ak moom tuuti wax ñu tuuti ci safar bi wax ñu tuuti ci li waral bés bi li waral tamit xel ko ñu jëri wax nañ ko waxtaane Cheikh na kon ñu def ñu wax salaamaaleykum wa rahmatulah ñu mbokk yi yëpp moom daal di jiital ci liggéey bi si mu dàq la ba suñu bopp di ko ñaanal fan bi ñu ànd ak wér dañuy ñaan ci kàttan suñu borom bàyyi suñu juma kim taalu bi fan yal na ko yàlla wale ci suñu mu tàkkoon si ndax sëriñ Saliou waaw Cheikh ma ñu fekk na fi tey ci kàddu def fi war fi def safar tey doon sa troisième édition koy def koy amal fii ci marché mondial chaque mm-hmm. lu waral lu waral safar bi waaw safar bi li ko waral mooy dañuy santaat suñu borom di santaat suñu duwaa di santaat suñu ñaari wàññi ban fekk suñu suñu wàññi doon tànn si duwaa gisal ak suñu tubaab bu baax a baax safar gi nag daanaka mën naa ni dañ koy continuer fii ci golf waaye bañ koy door da nga nekk ci liberté ah kon commencé na ko ci jaar waaw buñ koy door ñu nekk ci ak cent booba safar café bu cent ak bi kon bii su fekk mu doon golf booba maa ngi liggéey ne employé bi lay def su daan liggéey soxna si sëñ bi moom a def benn faru bi ci mbedd mi bu ma doon def ko dina am ak ñu des waat ci ñu si plan bi jox ñu ñu dama la def def ko loo xam ne sax bu ñu ñëwee ba suñu tubaab kenn mënu ko defal léegi ba nit ñëwee fii bu continuer te xaar ñu ba tey ñu ko soog a def wax loolu bu weeru teroon ci premier jour ba lañ ko tàmm ba nit ñi màgg yi ànd ko mu ko tàmm ñu ñëw ñu ñëwee fekk nañu bu doon xel comme complexe la ko indi. mel ni dama doon ko nekk Khelcom. waaw waaw ñun suñu def seen isaani rek luñ am moo luñ mel moo li ñuy door def ci daal di jàll ba fii ñu taxaw tey lépp luñ am seen isaani rek te liggéey bi jëm bu taxaw ba nekk dem ci jëlee ko Serigne Saliou muy Serigne Mame Saliou muy Serigne Cheikh Saliou yàlla na fi yàlla bañ a yëg ci moom jëmm ji mën na ko seede mën na moom ñoo am Saliou moom demee toog waxtaan moo joxe tur bi ah moom moo joxe xel ko moo joxe xel ko moo joxe bis bu ko war a sant lépp loo xamante ni danañ ci dugal ci moom la amal loolu moo waral xel ko bañ toogee waxtaan mu ne xel ko lépp ndax xel la mu àndal ko moom. dañ ko dindi ndax seen saal yëpp lu ko dañ koy tawaar dañ koy dañ koy jël ak lu ngeen bëri sama tekki lañ soxla loolu moo waral ay ay mbalaay bokk taal yi indi leen la jeunesse parce que tey ku ñëw ku dox xam ni suñu tubaab xarala dugg si naa fi mais bu ma fi gis macha allah lan ngay dégg bokk taal yi dégg ci nga xamante ni si dañuy dañuy liggéey jeunesse bi nga xamante ni jeune Sénégal lépp xam nañ ne liggéey rek dañu ko liggéey lan la ñuy dégg waaw xam nga boo koy xool xam nga boo ci nekkee da ngay jàng pour xam àdduna xam yàlla am maanaam jiw am jiw defal sa bopp defal sa ay mbokk loolu mooy dëgg am pour man maa ngi sañ a jox xalaat kii nga bokk sañ a jox mooy maanaam lépp jeune boo xam ne yaa ngi nekk foofu soo boolee jaamu yàlla liggéey lépp lépp ci foofu bi waaw te Serigne Touba mi nga xamante ne bii mooy suñu wasila man de Touba Diakhoum mu ngi gis àll bi ndax moom tamit gis nañ ko comme dafa am des fois wax dëgg yàlla waaw kon ku yaakaar ni jëfal dara Serigne Touba faaw nga demal liggéey ba pare faaw nga demal jaamu yàlla Serigne Touba ku ko yaakaar di nga nangu liggéey di nga nangu jaamu yàlla ndax nee na àjjana joo xam ne lu waay ngeen def wala lu waay ngeen wax man xam nga boobu ku nga dégg fenn wala nga foog mooy wala ci. kon moo tax ñuy ñuy jeexal ñoom maa ngi koy bépp zone boo xam ne war naa doon kon maanaam bu ñu xool bëgg ci kaw suuf dina doomu aay bi ñu xool ñu si saa yu ndax ku nekk ak si sax waaye yoon na nga fexe ba saa muy dégg nga ràññee sa bopp nga gis sa bopp moo ko soog a am. yaa ngi ñu seetlu ak yëpp ak yëpp. di feggoo aussi ak Badara. moom ñi nga xam ne yi ko xam ku xam ni complexe xel ko ñu jël xam ni yéen ak moom ak waxatam ñu jël kon moom bu bu ñuy laaj lan mooy tànkam ci safara bi moom moom dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy laaj ci bés bi bu wax ci weeru safara moom ñëpp xam nañu daal di seer baax la bàyyi baax la baax la ñu ngi leen di sëñ Cheikh maanaam sëñ Baye Fall nga doon nga doon nga doon Baye Fall kon daanaka sëñ Baye ñëpp xam nañ ko. te fii gars yi moom gars yi moom toog nañu ne Badara Baye Fall. Baye Fall laa bëgg doon. loolu waaw Badara Baye Fall yi ak weeru safar yi. waaw safar yi xam nga safar moom. mooy li allah di wax sànq rek. xam nga moom daa baaxoo. mais wax la lépp. nit ñi safar bi sax war a mais seetlu naa moom ba léegi ñu ko xamante ni. loolu yoonu suñ ci wàllu li si ànd ak loolu rek yor na jamono yoo xamante ne ba muy ba muy toog di ñaan. di ko taxaw danaa amit amul. yor bi ku ci doon dara amul. yàlla nag mën nañoo dimbali. Eh, loolu la ci saaf boobu la ñu. sax naa ñëw rek initiative bii. keneen seen tubaab. ndax lii keneen seen tubaab. ndax dañu yor na ay milliards moom demal dara seen tubaab. ñu yor fukki dërëm demal seen tubaab moom par rapport. c'est vrai mu doon jeune doon xale. Hmm? nekk ci gox nekk ci bërëb di liggéey mais lii fu mu amee fu fu fu fu weeru safar ñëwee rek seexul ñu gis ni li mu mën ak li mu mën yëpp ko ciy def te tamit bu ko ciy def day ànd ak yow maanaam ban motivation ngeen am ci loolu lan mooy waral ngeen taxaw ci taxawaay boobu man moom damay faral di wax bu ma fekk baax bu ma laaj yow mën nga ko gën a dimbali mais dimbali moom mën nga ko gën a dimbali parce que. na ci laaj yow. waaw damaa bëgg dimbali. mais mosoo ko ndaw dañ ne liggéeyal naa sëñ Tuuba samay morom raw na mosoo ko gis ndaw taxaw na sama ndaw doon naa ko sëñ Tuuba sama mag liggéeyal ma amul. mag moo gis mu liggéeyal sëñ Tuuba maa ngi ci yàlla liggéeyal loolu sëñ boppam la liggéey liggéeyal sëñ Tuuba nag mooy li nga dégg nga liggéeyal sëñ Tuuba sëñ Tuuba bu laaj la nga denc million joxe 500 bi te naan yéene woon naa loolu da ngay fen rek mosoo ko yéene te baal ci kàddu mais nag moom dafa nekk koo xamante ni dina jëfe ci seen moo ko tax mooy bëgg suñu climat tey mënoon naa jël fii ak tey di fi conseil wala fi def lu nekk su boobaa am na tur dañ koy romb mais dafa ñëw di wóor ak seen tubaab loolu nag moo neex ci ñun ñu ci ñu ko ñuy fekk sax loolu moo marqué trop ci moom ndax xel comme man xel ko moom mooy xel mu ànd ak moom yal na ko sëñ yal na ko sëñ Tuubaa defal te man li ma ko waxoon daal dama ne ko woon liggéeyal sëñ Tuubaa njëriñ li balaa koy xam nga dem ba ci kanam avant nag mën ngay commencé dara muy métti loolu dogal suñu borom mais sëñ Tuubaa te alaaji wax da ngay def léegi mu fay jóori jóori na da ngay def léegi mu fay léegi dama ko wax démb ni ko man ko ñu def sëñ Tuubaa nga jàmbur man la ci def mais moom mii man maa la wax tey jii man de maa ngi koy ñaan sama xol bii jële ko sama xol bii bu ko ñaan sëñ Touba Cheikh Rafa yal na ko sëñ Touba wàccee sa yoo xamante ne day koy doon ak borom bi nekk te gëm naa ne suñu borom dina ko def رب كريم واسع ويفضل ووسيلتي أبو لدي مفضل رب كريم واسع يعزلوا ويفضلوا ووسيلتي أبو يدي مفضلوا خير وفري خلص الأمم بالمصطفى من سبقه لا يقالوا هدي ربنا maanaam dañuy sant sëriñ bi kii moo dara damay faral di wax ni

daal ne karaamati xattu yëf yi sama karaama mooy sama mbir mi yàlla tamit dogal na li nga xamante ni bii moom lañ nekk muy liggéeyal seen Tuubaa muy safar bi jëmm ji di ko def maanaam ku yokkul da ngaa wàññi waaye ku sant da ngaa xaram sant nag ki ñu koy defal mooy ku yëg boppam koo kaay sant sëñ béykat la ko sëñ bi saa daan wax. ana loo waral lii mu ne ko mbàkke damay sant mu ne ko ku sant muy dolli suñ seen yàlla yàlla na suñ tubaa dolli ci barke seen seen xew kon nag day loo xam ni safar gi ñetti yoon yi def ci doog a am waaye door na lu jiitu ñaari at mu doog a ñëw fii at lay feete tey ndax ñaari at yi mën naa ne naa ko kon at lay feete tey te fan ko dooree woon nekkoon ba koy doxal foofa moom mënu ko doxal fii man bu ma ñëwee Dakar ba mel fii nii li moom ma fi indi ñu di ma fay bëccëg bi ba tey ñu may fay bëccëg ñaari bi mu loolu maa koy sant sëriñ bu baax li ma mën ci liggéey bi tam suñu borom dogal na ci ginnaawam gi laa ko mën kon rafet na bu wootee bisub sëñ Tuubaa ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñoo nekkal ko ci bis bi ànd ko moom te sëñ Tuubaa damaa dégg sànq ñuy ñuy ñuy waxtaan ci sëriñ bi ba tudd ci yoonu géej gi yoonu géej gi ma ndax ñun du tukki bi de du wàcc fan na si yeesaat di jox fan faral di wax ak yi waaye sàkk bi mooy wax ko Moussa Siré rek ba di suñ Tuubaa tege suñu ndimbalal keroog bi capital bi génnee ba ma seexal mu ñëw taxaw mu ne ko sa waa jàng nii layoon ba yee bëri naa ba daan te bàkkuwu daan ko seex mu ne ko mbàkk mu ne ko leneen ma wéy keroog la seex andi suuf di leneen ak géewal ku ko teral ku ko teral rek ko suñu tubaab bi ko wax teral ko bàllee si buri suñu mbàkk maaram xaalis tagg ko ba yeggal suñu tubaab daan ne am na ñu ne ko mi ngi nii mu ne may leen bisub sëñ Tuubaa boobu ñu taxawoon ci wax Moussa di di di sant le sëriñ bi di wax ni ñun dara gisuñu ci ndax ñett yi la sëñ Tuubaa demee ñoom jaan bi départ na dem ñii gis jaan bi dee ñii dégg jaan bi dee gis waxee su jaan bi dee ñun nag li ñu def ci suñu baax mooy dégg dong lañ ci def dee fekkiwul bu doon ab tool bi sëriñ bi dara jéem naax bàcc góor def lépp ba gerte gi tasaaroo ñu séparé mbuus ñu séparé kàddu bi ñu ñëw toog liggéey lii la ñu suñu baax defal lu ñu jom la boo bëggee dégg dëgg sëñ Tuubaa ñoo tax lu ñu jom ñu barke sew xat yi xel comme jii ko sëriñ euh, di seexalaa jël di déglu sëriñ Saliou di bi téere bi wallahi na aussi ñun ndaw ñi ñun ndaw ñi bu ñu waree war a jëfal sëñ Tuubaa loo xam ne duñ ci yëg suñu bopp ndax sëñ Tuubaa rek laa gis ci koo xam ne bu ñu doon dagg suñu yàpp yaram yi ba mu jeex ñu di ko ko jox teewul koy desal bopp loolu moom sëñ Tuubaa doon la jaam sax bëri ci démb damay taxawal ñu ne ko yonent bi ngën gi mbindéef la ñu xam ne moo gën ñëpp yonent bi ñu xam ne sëñ Tuubaa Muhammad moo gën ñëpp waaye lii gën a ki man duñ benn ginnaaw bu yonent bi gënee ñëpp Sëñ Tuubaa man ñëpp ngën gi ñu def daa am man gi ñu def am Sëñ Tuubaa mooy man gi ñu def loolu moom na leen jël maa ngi diglu kàddu yi baax asalaamaaleykum wa rahmatullah di waa sud bi di ñaan ci doole Serigne Touba suñu borom yokk ko yàlla yi nga xam ne si safar bi fas yéene ko ànd ak ñun di siyaare ñu ko taxawoon saa sànq nag daj ko naa ci sëñ baax ndax man noonu laa demee man du ma déglu xasaay xasaay bi laa bëgg waaw ma ko déggee damay mel neneen chasse bi rek laa bëgg ñu ngi leen di siyaare bu baax di ñaan ci doole sëriñ bu baax yal nañu sëriñ bi defal jàmm dégg waa xelkom bi liggéey bi mooy équipe di ma waxee sëñ ñëw rek tudd naa nekk moom la. waaye moom li ñu ay ndaw ñoo ko sos ñoo xamante ni tey lépp li ñu def si àdduna mooy fexe ba lépp lu am ñu andi lu ñu fii ci Sénégal ànd ak ay ndaw ñu liggéey liggéey bu jaar liggéey boo xamante ni liggéey bu sell lay nekk liggéey boo xamante ni lépp lu daw ànd ak soxla ci lu wàllu liggéey bi traiteur fast restaurant di liggéey loolu la ci la xel di liggéey su xel doon di liggéey kenn ko gisee nii mi ngi nekk si golf si si marché Mame Diarra soo ñëwee golf si marché Mame Diarra mi ngi nekk si ginnaaw kër Balla Gaye moom la xam ne liggéey ma la wax sànq rek dañuy wax ci wàllu liggéey yi ci wàllu restaurant traiteur dañuy anniversaire wala màggal wala cant wala mariage lépp lu mën a nekk. intégrité bi ñuy accompagner loolu. waaw te liggéey bu set bi seen liggéey boo xam ne ñi koy def am nañ ci xam-xam am nañ ci expérience ba ci ëpp solo mooy ko nga xam ko loolu dafa am parce que ñun li ñu dugg si liggéey bi comme ñu doon dugg si te buñ doon dugg si liggéey bi parce que dafa am fu ñu jaar jaar ci ay restaurant yu bari ñoo fekk tamit suñu waajur nekk ci nekk liggéey bi ba am ci lépp lu ñu am ñu sokkee ah kon suñuy mag suñuy suñuy rakk lépp ñu ñu ñu ñu ci maanaam ci wàllu liggéey bi ñu baax. fii boo dee xool dignitaires yi gën a siiw ci Dakar boo ko tegee sa tànk du ko fekk sama rakk wala nga fekk fan boo xamante ni sama jëmbaar la waaw te ñi ci ëpp maa leen indi ak biir leen ci liggéey bi bàyyi leen foofu xel comme dignitaires am nañ ko fii ci golf am nañ ko gasi fois mi ngi nekk ci biir aéroport ku dee ku dee kër bande bay numéro deux foofu foofu lañ am am nañ beneen boo xam ne ma nga nekk Touba sëñ Moustapha Seck moo ko nekk di suñu mag suñu xalifa nga xam ne lépp luñ am ci liggéey ci moom la bàyyi ko. waaw ban heure ba ban heure la tàggoog bi ñu tàggoog bi ñu vingt quatre heures sur vingt quatre. ñu ngi vingt quatre heures vingt quatre heures sur vingt quatre. fii ci golf sud marché mondial. fii ci golf sud marché mondial. heure boo wootee ak foo mën a nekk. ak bi nekk espoir. lépp heure boo wootee bi nekk espoir bi nekk marché mondial bi nekk Touba heure boo wootee ak foo mën a nekk si kàttanu yàlla loo sama dana la fekk incha allah. nga wax ñu yan plat la gars yi gën a bëgg ci matinale bi ci journée bi yoo xam ne ñi nga xamante ne yéen soxna yéen a koy préparé yan plat la. waaw journée bi moom chaque jour am plat plat bi war a def chaque jour dañuy am plat bi plat yëpp nañu ko doon. plat yëpp nañu ko doon. waaw. tout chaque jour li ñuy liggéey. chaque jour 24 heures sur 24. waaw dafa dafa am ay équipe wala. waaw dafa am équipe. ñu liggéey ak ñu liggéey 24 heures semaine laa koy. waaw xanaa di sant Serigne Touba rek. waaw di wax ni Cheikh naa jeune la boo xamante ni bii tey li ko jot ci àdduna mooy liggéey di ànd ak ñi nga xamante ni bii tey ñoom la la ànd ak di liggéey sama soxna bu baax a baax a baax ndax liggéey bi kat toll na fi foo xamante ni bii tey ak lu mu métti métti métti métti taxul mu arrière taxul mu daw taxul mu dellu ginnaaw mu ngi jàpp liggéey bu baax a baax a baax waaw sama jarbaat bi si Modou mooy son association moom mooy koo xamante ni bii tey lépp lu nekk ci xel xom wala lépp lu ñu gis ci internet bi wala lu ñu gis ci télé yi ba tax ñu ne waa xel xom bi fii nangam ci moom la bàyyi ko voilà di sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier client yi di leen wax ne di liggéey pour yéen heure bu ngeen ñu soxlaa ci lépp lu ngeen ñu soxla 24 heures sur 24 par exemple am na yéen waaw. Aïcha muy noonu loolu la ñu jël waxtaan am wax nañu fi mu nekk wax nañu heure bi liggéey ba gars yi fii la ci Golf Sud ñu ñëw fi aussi ñu fekk fii Baboy dañuy màcc Cheikh Mahi waaw ñu yàgg lool Baboy bi ñu ngi des yàlla. waaw maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp Cheikh Mahi wax dëgg yàlla lu mu doole mooy Serigne Touba nekk bu baax di tànn Serigne Touba am lool ci ñun moo di ko caaxaan te safar bi ba ci démb ñoo ko jëlee safar tey ñu ñëw tombé ngeen ñëw bi pour ñu tuur moo gën bu ñu jëlee ñu jël seen tubaab rek ak ñoom seen tubaab rek pour ñu dañ lay teral teral la yëg la yitteel leeral lépp dina ko te lu set te lu wóor la ñuy liggéey kon Cheikh Ouna dañ koy ñaan yàlla yàlla dimbali kanam ci barke seen tubaab ci weer safar bi ak safar bi muy def tey yàlla duñ ko gàppal mu am ay unité yu fu ne ci àdduna maa ngi koy ñaanal yàlla nag dañu ko baax rek daal di suñu tubaab te yaakaar naa ne ku ñëw fii di nga lekk yàpp sa neex di nooy bu set ñu fi nekk ñu siiw sëñ bëgg sëriñ tubaab yaakaar si moom te yaakaar naa ne képp ku liggéey ngir sëriñ tubaab lu set ak dee maa ngi koy ñaanal yàlla yaa ngi wax ni sëriñ tubaab moo leen boole ñu am door de loolu mooy seen relation parce que léegi-léegi bu ñuy wax wax na ba tudd Nord Westfoire fii beneen ministère bi nekk soo ko defee lan mooy boo ko bokkee ñëpp ci hmm. ndax ñoo bokk fu hmm. ñu doon murit mu doon murit doy na bokk lu ne dina waxtaan man ci lu bari daanaka lu bari fi laa ko jëlee kon nit ku baax la nit ku sell la nit ku set nit ku bëgg liggéey la waaye nit ku bëgg Serigne Touba. te man loo am ci àdduna te bëggoo Sëriñ Tuubaa man Sëriñ Tuubaa bi la kon dañ koy ñaanal ci barke wér bi ci barke xaatim ci barke màggal yàlla na Sëriñ Tuubaa dafa jàmm ak njabootam ak soxnaam ak employé ñëpp góor jigéen mag la yàlla na ko Sëriñ Tuubaa yokk mel ni jumaam xoolal bu Tuuba si barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf teraatina teraatina màggal gi ñëw xolu murid yi sedd la

alhamdulillahi sawar terootina terootina magal gi ñëw xolu murid yi sedd na alhamdulillahi sawar terootina terootina magal gi ñëw xolu murid yi sedd na ahmadu tina teratina magal gi ñëw xolu murid yi sedd na amado alhamdulillahi sama teratina teratina magal gi ñëw xolu murid yi sedd na weeru safar amado xaratu yow ma sabti saamin xasan bamba ko waa moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar payam jox ko am payam la jëye ñëw yàlla buur jox ko bu payam jox ko am payam dina ji am ndam bamba joxunu xéewala amado xaratu yawma sabi samin asa samin asa moom la waxoon jóge ko mooy weeru safar sant yàlla buur Seex Muntaxa ko woote waat sa tëm bi woo amado xarajtu yawma sabti saamin azab saamin azab moom la waxoon ca weeru mooy weeru safar moo doon mu Bàmba moo fi dàq jiite ci gën a lislaam ci bépp woote sunu xalifa siggil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa donnu bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa siggil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa moo donnu bamba moo fi dàq jiite kon jiite siggil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa moo donnu moo fi dàq jiite sunu xalifa siggil na lislaam ci bépp woote sunu ci bépp woote amul morom lim def ku wet di amul morom lim def ku wet di jéemal Seex Muntaxa Mbàkke moom mi jiite sikkil na lislaam ci bépp woote Seex Muntaxa amul morom lim def ku weddi jéeman sunu xalifa amul morom lim def ku weddi jéeman sunu xalifa Seex Muntaxa Mbàkke moromam yombul la sunu xalifa mu nanu Bamba moo fi dàq jiite moom mi jiite sikkil na lislaam ci bépp woote weti mu jar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa weti mu jar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa weti mu jar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa sonal na diine mu mu jot te taaro sunu xalifa mënanu Bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa sigil na lislaam ci bépp woote mooy góor mooy gar mi sagal na Seex Bamba sunu xalifa mooy góor mooy gar mi sagal na Seex Bamba sunu xalifa mooy góor mooy gar mi sagal na Seex Bamba sunu xalifa xel yi dal ca dëkke Makaramba sunu xalifa sunu Bamba moo fi dafa jiite sunu xalifa sikkil na lislaam ci bépp woote xel yi dal ca dëkke Makaramba dal te mbégte ma karamba. sunu xalifa xel yi dal te mbégte ma karamba. sunu xalifa xel yi dal te mbégte ma karamba. sunu xalifa amoo maas xel yi dal te mbégte ma karamba. sunu ko wutal maas xel yi dal te mbégte ma karamba. te sunu ko wutal maas xel yi dal te mbégte ma karamba. xel yi dal te mbégte ma karamba. te sunu bi jaaree laa. Mata dund gi njariñ la xel fi yàgg lool ci barke Sëñ Touba amiin alhamdulillahi sawar terootina terootina màggal gi ñëw xolu murid yi sedd na alhamdulillahi sabal terootina terootina magal gi ñoo xolu murid yi sedd na bi sedd naa te di weeru mbég te wu xeewale te moo di weeru Bàmba bun ko jaawale alhamdulillahi sabal terootina terootina ak gi ñoo xolul murid sedd naa ca weer wu xeewale ma ko wa Jóob jeewal la Bamba jaare amado xaratu yawma sabti saa min asa samini asa moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar la jëye ñëw yàlla bu doxoog payam doxoog payam la jëye ñëw yàlla bu doxoog payam doxoog payam Bamba joxunu xéewala amado xaratu yawma safi samin asa samin asa moom la waxoon ca weer la mooy weeru safar mo woote ak cant di sant yàlla buur yàlla buur mo woote ak cant di sant yàlla buur yàlla buur teewaat sa tëm bi woo Amadou waratu yow ma sappi sàmmi ni asaar sàmmi ni asaar moom la waxoon ca weeru moo weeru safar moo doon nu Bàmba moo fi dàq jiite dàq jiite ci gila lislaam ci woote xalifa siggil na bamba moo fi jiite sunu xalifa siggil bamba moo fi jiite sunu xalifa siggil na lislaam ci bépp woote. sunu xalifa mu doon Bamba moo ci bépp woote. amul morom lim def ku wet di jéemal. amul morom lim def ku wet di jéemal. di jéemal Seex Muntaxa Mbàkke moroomam yombul moo fi dàq jiite moo nu jiite sikkil na lislaam ci bépp woote Seexul Muntaxa amul morom lim def ku weddi jéeman sunu xalifa amul morom lim def ku weddi jéeman sunu xalifa Seex Muntaxa Mbàkke moromam yombul la sunu xalifa mu nanu Bamba moo fi dàq jiite moo nu jiite sikkil na weti mu jaar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa weti mu jaar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa weti mu jaar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa solal na diine mu mu jotte taaro sunu xalifa modanu Bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa sigil na lislaam ci bépp woote mooy góor mooy mi xalifa mooy góor dal ca dëkke Makaramba sunu dal ca dëkke dal ca mbégte ma karamba. sunu xalifa xel yi dal ca mbégte ma karamba. sunu xalifa xel yi dal ca mbégte ma karamba. sunu xalifa amoo maas xel yi dal ca mbégte ma karamba. sunu ko wutal maas xel yi dal ca mbégte ma karamba. te sunu ko wutal maas xel yi dal ca mbégte ma karamba. xel yi dal ca mbégte ma karamba. te sunu bi jaaree laa. Mata dund gi njariñ la xel fi yàgg lool barke Sëñ Tuuba amiin alhamdulillahi sawar terootina terootina màggal gi ñëw xolu murid yi sedd na alhamdulillahi sama terootina terootina magal gi ñoo xolu murid yi sedd na ahmadu alhamdulillahi sawar terootina terootina magal gi ñoo xolu murid yi sedd na Seydina Assane. Bamba ko waa. moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar. ñaan jox ko alu fayam liggéey ñëw yàlla buur jox ko bu fayam jox ko alu fayam dina ji am ndam bamba joxunu xéewala sant yàlla buur Seex Muntaxa ko woote waat sa tëm bi woo amadoo xarajtu yawma sabti sàmmi mi azaan sàmmi mi azaan moom la waxoon ca weeru mooy weeru safar moo doon nu Bàmba moo fi dàq jiite ci la lislaam ci bépp woote xalifa sikkil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa ku donnu bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa sikkil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa mu donnu bamba moo fi dàq jiite mu jiite sikkil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa mu donnu bamba moo fi dàq jiite xalifa siggil na lislaam ci bépp ci bépp woote amul morom lim def ku di jéemal amul morom lim def ku di jéemal Bamba Mbàkke moroomam yombul la Bamba moo fi dàq jiite moom jiite sikkil na lislaam ci bépp woote Seexul Muntaxa amul morom lim def ku weddi jéemat sunu xalifa amul morom lim def ku weddi jéemat sunu xalifa Seex Muntaxa Mbàkke moroomam yombul la Bamba moo fi dàq moom mi jiite sikkil na lislaam ci bépp woote. gët yi mu Bamba doy nag jaaru. sunu xalifa wet yi mu jaar bamba doy nag jaaru jaaru sunu xalifa solal na diine mu mu jotte taaro sunu xalifa solal bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa gor mooy mi sagal xalifa mooy góor mooy gar mi sagal na Seex Bamba sunu xalifa mooy góor mooy gar mi sagal na Seex Bamba sunu xalifa xel yi dal ca dëkk ma moo fi dàq jiite xalifa sikkil na lislaam ci bépp woote xel yi dal ca dëkk ma dal ca mbégg ma karamba. sunu xalifa xel yi dal ca mbégg ma karamba. sunu xalifa xel yi dal ca mbégg ma karamba. sunu xalifa amoo maas xel yi dal ca mbégg ma karamba. sunu ko wutal maas xel yi dal ca mbégg ma karamba. te sunu ko wutal maas xel yi dal ca mbégg ma karamba. sunu xalifa amoo maas xel yi dal ca mbégg ma karamba. dund gi njariñ la xel mi fi yàgg lool barke Sëñ Tuuba. amiin. alhamdulillahi sawar terootina. terootina. xolu murid yi sedd na alhamdulillahi saxal rawatina magal gi ñaa xolum murid di sedd naa

Bakar. Bamba ko waral. moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar. Amadou xaratu yow ma sabti samin asar. samin asar. moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar. Amadou xaratu yow ma sabti samin asar. Bamba ko waral. Mustafa te foogu payam te foogu payam liggéey ñëw yàlla buur te foogu payam te foogu payam dina ji am ndam Bamba joxunu xéewala ci yàlla buur Seex Muntaxa ko woote waat sa tëm bi woo Amadu xarajtu yawma sabti saa min azab saa min azab moom la waxoon ca weeru mooy weeru Safar moo doon Bamba moo fi dàq jiite ci la lislaam ci ci bépp woote sunu xalifa doon nu ci bépp woote te siggil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa moo doon Bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa siggil na lislaam ci bépp woote sunu xalifa moo doon Bamba moo fi dàq jiite sunu xalifa siggil na lislaam ci bépp woote amul morom lim def ku wet di jéemal amul Seex Muntaxa Mbàkke moroomam yombul la sunu xalifa mu doon Bamba moo fi dàq jiite moo nu jiite sikkil na lislaam ci bépp woote Seex Muntaxa amul moroom lim def ku weddi jéemat sunu xalifa amul moroom lim def ku weddi jéemat sunu xalifa Seex Muntaxa Mbàkke moroomam yombul la sunu xalifa mu doon Bamba moo fi dàq jiite moom mi jiite sikkil na lislaam ci bépp woote weti mu jaar Bamba doy nag jaaru sunu xalifa weti mu jaar Bamba doy nag jaaru wa sallallahu taala ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور